jërë ngeen jëf mbokki téléspectateur people 221 ñi siiwur ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di nuyu suñu kilifa diine ak suñu kilifa aada yi tey nag ñu dalal suñu consultant ki nga xam ne vraiment tàyyiwul benn yoon ci suñu kër gi heure bu ñu ko woowee disponible na pour ñëw yokk xale yi doole yokk xale yi aussi tamit seen xalaat ci làmb tey nag ñu ngi fi arène nationale ku ne gis na tàkkusaan bi nga xam ne moo fi am barki démb ci diggante Balla Gaye 2 ak Boy Niang ñuy féliciter Boy Niang di encourager ki nga xamante ni mooy Balla gay euh, tey nag fas yéene ñëw waxtaan ak père père dama lay bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre. waaw ñu ngi leen di ziar bu baax di nuyu. People 221 People 221. sa kër leen di suivre bu baax a baax a baax. Mm-hmm. te di leen nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre People 221 rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. Mm-hmm. di leen wax ni lépp lu ñu fi wax rek waaw ah, Euh, dañ koy teg ci làmb rek. Mhm. duñ ci génn làmb bu soobee suñu borom. Mhm. yal na yàlla may nu xel mi. ak dal gi ba nu waxtaanee ko. allahumma amiin fi ma njëkkee keroog euh, takkusaan ji nga xam ne am na ko làmb am na ko keroog mooy fii arène nationale ci diggante Balla Gaye ak Boy Niang takkusaanu làmb boo xamante ni vraiment amateurs yi kontaan nañ promoteurs yi kontaan nañ ñëpp kontaan nañ takkusaan jooju mën nga ma cee ñëwalaat ci taaru bés bi. waaw takkusaan jooju li ma ci mën a wax mooy làmb moo wonewaat boppam mhm. làmb moo wane ni. Mhm. sport la boo xam ne buñ ko encadré comme il faut. Mhm. def ci li ñu war a def. Mhm. mooy sport bi Sénégal yi bëgg. puisque sport boo xam ni sport boo xam ne saa boo ko tëggee jour yoo xam ne boo ko tëggee day fees tell am na culture bàkk maa ngi fi pecc maa ngi fi nit ñi sañ seen nu ñëw combat yi neex na ah vraiment journée bi li ñu ci doon xaar à cent vraiment am nañ ko quoi. Mhm. waa làmb am nañ ko. Mhm. làmb wane waat na beneen xar xaram dimanche. Mhm. te ñu gis tamit ci làmb jooju presque boo xoolee une fekk na porte yi fees nañ làmb ji amul violence aussi tamit combat yi neex am ci aussi tamit mu mel ni làmb làmb keroog ji daal bokk na ci li nga xam ne indiwaat na arène nationale fii mu toll nii. waaw xam nga nag li tax mu demee noonu nag xam nga nag wu mag nag ci bis bu rëy lañ koy rey. di nga kin tëggal bis bi. ki bëre bi. daanu ci bi kenn du ko tëggal te làmb demewul noonu. Mhm. Balla ci boppam mooy làmb. Mhm. bu ñu bëggee dégg dëgg rek promoteurs yi moom la ñuy wër. Mhm. loolu moo tax bis bu taaroo noonu. man jàpp naa ne ñaari mbër yi ñu tëggal. promoteurs yi loolu la ñuy wër ci làmb. amu fi violence amu fi xuloo amu fi xeex. journée bu toll noonu nag mënoo ko tëgg te du am ay quoi yoo xam ni dañ koy rectifier après. mais yu ndaw ndawaan lay doon rek mais li ñu doon séntu ci bis bi daal am nañ ko. gas euh, Gaston Mbengue hmm. di ko ñaanal yàlla fëgg boppam bu baax a baax. di gërëm doomam Makan Mbengue hmm, mais di wax bravo à Abdoulaye Ndiaye aussi. Hmm, sonn parce que un grand organisateur noonu lay def. journée bu mu tëgg nga xam ni journée bi borom xam-xam dugal na ci loxo. lamb dimanche. arène nationale ba mu dee arène nationale ba tey. combat bu mel nii amu fi. dëgg la man maa la wax loolu. combat bu mel nii amu fi. dëgg la yu mel nii la làmb soxla. dëgg la moom la le monde de la lutte a besoin. de mhm. ce genre de combat. Mhm. loolu la. Mhm. ma ñëw ci combat bi nag avant combat bi ma jëloon la fi nga am yenn wax yoo xam ne waxoon nga ko ñenn ñu bari ñi nga xam ne comprendre uñ woon jàpp ne yow mi da ngay wax pour far wala leneen alors que yow am na benn annonce boo xam ne defoon nga ko ci komba bi maa ngi koy fàttaliku nga naan ñu Balla Gaye même bu dee daanu na sax jëruñu koy wax dara parce que tàkkusaan ju ne dina ko fi ñu bari xaw la ci mere mën nga ñu ñëwaat ci loolu. waaw xam nga àdduna nit da am dégg-dégg wax lu mu neex neex dégg-dégg ko dàq. dëgg la xam nga waa Géejawaay dama leen a woon ci defet ci ci ci ci. ci vidéo boobu. Mhm. parce que dama leen wax ni kii bu fekkoon ne làmb coupe d' la. Mhm. man la indil na leen coupe d' afrique. Mhm. parce que roi de arènes mooy coupe d' kon bu dee man la dama ne leen bu dee man la pour boo amee dégg dégg entendement dama ne leen Balla Gaye dagg na jéng yi yàgg na. booba c' était pour préparer leen ci lii xew nii la. nga xam ne làmb dama ne leen match nil défaite ak victoire moo ànd. te euh, àdduna mënoo ci nekk rek. di am lu neex te lu naqar lu ma sa ñëw. j'ai tout dit pour préparer leen pourtant teewul kañ naa fa Balla Gaye wax ko ay qualité parce que il fallait aussi ma gonfler waa Guédiawaye. parce que nag à part wax li nga xam ne noonu la làmb tudde je suis un membre de Guédiawaye. élément Guédiawaye laa. kon waroon naa wax loo xam ne dina leen motiver au moins. loolu moti source de motivation la woon rek. mais du sax ak par. parce que jàpp naa ni il a besoin ay mag yu nekk ci ginnaawam. jox ko ay conseillers loo tax ma génne woon foofu. Hmm. mais il fallait pas m'en vouloir. Hmm. parce que tamit géejawaay laa dëkk. Hmm. am naa droit sax far géejawaay. mais nag ci analyse u làmb moom làmb laa faral. dama doon dëral waa géejawaay. ci li nga xam ne moo war a xew. bala moo xew nu koy gisee neneen. comme ce qui se passe actuellement nii loolu laa doon sóoraale. loo tax ma teel ko wax. waaw uh-huh. ma ñëw ci ci ci ñaari ci ñaari mbër yi keroog bi ñu summee ko ñoom ñaar Balla Gaye vraiment indi état de forme boo xam ne bett nañu bari keroog nan gisee forme Balla Gaye bi mu summee ko non bi mu sumeekoo boo ko xoolee xam ne des na liggéey na mais des na. xam lan moo des Balla Gaye forme bi mu indi contre Gris form bi mu indi contre Boy Niang moo ko gën. d'accord waaw moo ko gën léegi nag comme moo ko gën bi mu sumee ko boo ko xoolee xool booy Niang parce que waxoon naa ko ci vidéo bi aussi. danaa leen forme bi ma gis ci booy Niang wax dëgg yàlla forme buñ ci ayib la. Mhm. dafa liggéey ba ñuul kuk boo ko gisee. Mhm. nga xam ne kii liggéey na. Mhm. làmb nag noonu la. Balla bi muy toll ci âge boobu amul benn problème. forme yooyu la daan indi. mais ab liggéey noonu la day am ay woo ak ay baa. loolu mooy problème bi quoi mais liggéey na. xaj na nag des na mais liggéey na. ma ñëw ci booy Niang ñu bari doon wax naan Boy Niang bu duggee ci ay luur ñaari luur da ci am problème. booy Niang a fait ce qu'il devait faire ce qu'il faire mooy dama ne la mënoo kale ci ñaari poids lourd am troisième ba boo fa kalee bu boobaa. danañ xam ne yow mii tu as des problèmes. Mm-hmm. dama ne la woon bu dimanche danañ xam tiré na ay conséquences. Mm-hmm. ci ñaari combat yi jàll wala tiré wu ci ay conséquences. Mm-hmm. mais vraiment il a tiré des conséquences. liggéey na ci. xam ni koy may ndam. xam na ni pour mu nekk leader foog mu daan leader. mais liggéey na ñëw na yàlla may na ko ndam yàlla na ko ji. ñu ñëw ci préparation mystique bi combat bi ñu gis ni mystique bi daanaka boo xoolee ci côté ci côté Balla Gaye sax laay wax daanaka la gars yi gënoon a fa maanaam la gars yi gën a favoriser ko bëre bi boo xoolee ñoom ñaar def nañ plus de deux heures temps avant ñu dugg ci géew bi ak ci biir géew bi. waaw xam nga làmb nag day toll foo xam ni su fekkee pare à cent pour mhm. nga mottali koo ko mystique. Mhm. mais man mistik ci làmb man vraiment daal moom laa desee kii quoi. man xam nga lu ma gëm ci mystique ci làmb mooy bët yi lay xool joo bari am ñu xam dara am ñu xamul dara. Mhm. nga sangoo say cumikaay di nga làmb li ciy daan mooy pare. Mhm. pare mhm. physiquement moralement boo ko defee mën nga ci génn quoi. mais mystique man wax dëgg yàlla ci làmb. bu doon man maay mbër moom xam naa ni. sëriñ si nga xam ne ñooy ñaanal waa làmb moom. moom moytuwul seen weccit dootul bari. mel ni ni ma la déggee comme si que euh, Balla Gaye dafa jël mystique yaakaar ko ci combat bi en cent pour cent. xaj na yaakaar na li mu liggéey mais mystique bi ñu indi ci làmb ji ëpp na. Mm-hmm. Balla Gaye ëpp na man du ma koy conseil ces prochains combats là jar na sax bitéel yëpp daan sangoo ba muy daan mu dolli ci ndox ñëw sangoo ko bëri. Mm-hmm. parce que tollootu fu làmb fu muy yàq xaalisam ah. Mm-hmm. bu ko kenn yàqaloo xaalisam. waaw waaw. su ma doon moom kenn du ma yàqaloo sama xaalis. xam nga la war a def. entraîner ba wow koŋ. ñëw taxaw sotti ko ay bitéelam ñetti bitéel dong bu ko indee bu bëree noo xam ne Balla Gaye bëreen mhm. loolu lañ ko xamee woon mhm. mystique mas ku nu jàpp ci mystique ba muy lewaatoo wane ginnaaw mhm. adversaire bi wane la ginnaaw di lewaatu mas ku nu dóor moytuwoo ah kon kay comme que waa lay dóor yaa ngi koy gis te toogul ba caag mu bàyyi la fi di lewaatoo jëmale ci àll ba kay wax dëgg yàlla ana ñaan nga te aussi bu ñu xoolee ci staff mystiquement ci côté ñaari mbëri bi ñu xoolee kaaw Balla mel ni ñoom dañu teel a jubilé ñu ngi xool Boucher ngay fecc fële sëriñ bi nga xam ne moo war a yóbbu Balla Gaye yi mu ngi commencé moom di bàkkul ni mu ci dugg par rapport ak staff Boy Niang ni ñu dalee. ñi nga làmb làmb foog nu foog foog nu wàññi comédie bi quoi. Mhm. sport la. Mhm. làmb sport la. bu mhm. ko gars yi génne cadre sport. làmb sport la comme football comme handball mais pourquoi làmb nu bëgg ci dugal ay comédie comédie comédie. di def di cinéma ci loo xam ni fo la nag mais boo daanoo da ngay rus. te doo jël ay millions nu fay la ko ba pare. Mhm. yow ngay jibile te te te pare goo laam. Mhm. yooyu mooy lan. Mhm. c'est pour se faire voir se donner des ailes. yow mbër mi yaa ngi ko indi kay bul def sa publicité bopp doo star bi mbër mi mooy star bi bàyyil ba mu bëree ba pare nga wane ni man ñaan gi ma indi normal na wala li ma ñaan la waa ji d'accord na mais se faire di buzz ci ginnaaw kenn koo xam ne mi ngi jëm xare xamoo lu fay am xamoo fu muy mujj tamit. Mhm. yooyu tamit mbëri nañ ci conscient quoi. Mhm. nañ ci conscient. Mhm. ma ñëw ci tuus mi ah keroog ñu gis Balla Gaye bi mu tuusee presque tuusul sax deux minutes yu mat boo xoolee après Sa Thiès sax moo mujjee récupéré waat tuus bi mu mel ni Balla Gaye dañ ko jàpp mystiquement par rapport ak ni mu daan tuusee ci yeneen combat mi. Balla Gaye kenn jàpp ko mystiquement di nga Balla li mu waroon a def la def. mooy lan. mooy Balla dañu woon du xaar xam nga Balla du xaarkat. te dana tàkkaan naa la dama ne leen bu ngeen ko xaarloo sax bëri la ko erreur. Mhm. mais xaarul dafa dem jëli waa ji. Mhm. moom bëri ak moom. Mhm. mais yow tamit xam nga Balla bu nekk si tous ses potentiels physiques. dina coppet tànk mënul sax taxaw benn place dëj la ne coppet tànk déséquilibré wu ba turu. kon foofu da jàpp ni ci côté ci côté entraînement la Balla Gaye xaw a amee handicap tuuti. il am na am na am na am na am foofu la amee problème. ci côté entraînement. foofu la amee problème. ci am lu muy nëbbu peut wala physiquement liggéey bi moo des. Mhm. parce que bi mu jëlee tànk booy bi. Mhm. bi booy bi fi taxoo dafa déséquilibré mhm. mu fël loxo bi mu fa tax. mais Balla Balla koo xam Balla soxlawul woon sax jël tànk yow tamit Balla daan jël tànk. Balla ku ne nu ne daane ne ko nit mais mas ngaa gis Balla jël tànk. déedéet non non non ba pare jël tànk ba ba téye koog ñaari loxo nga nga rëcc. moo lay wan nii eh, am na lu des. mais bëri baa nga fa xel maa nga fa intelligence baa nga fa. mais physique bi. Mhm. ak doole ji mhm. moo des. aussi tamit ñu bari ñu ngi doon wax ni dafa feebar ba bi mu bëree ba pare sax boo xoolee sapeur pompier ñoo ñëw yëkkati ko. xam nga waa Géejawaay sax xam moom boo fa dëkkee am na yoo xam ne boo ko waxee. waaw man taw aussi seetlu naa foofu lenn mbër Géejawaay yi <laughs> ñaare ko ci daan rek. ni problème problème problème problème zone bi. tey bu ñu nee guy gi dafa am zone ah mu doon baale bëriwaale na mm. ñoom tamit ñoo war a bàyyi bëriwaale blessure. Mm. ah Modou Lo bi man daal noonu laa mudloo ci loolu boo blessé daal damay dem ne damaa blessé. parce que nag ji nga boo daanoo. loo wax nu ne lay la. di nga xam ne dañ naan mbër bu daanoo yutu lay. loo tax boo daanoo loo wax nu ne lay la. loo tax man bu ma blessé du ma bëre. damay dem faju ji ba wér soog a ñëw. damay am fay fayda xam ne stade bi ni ko Balla gay def. du wër sa bëri bi waala blessure yooyu tamit. def fi lu kenn mës sa def. dëgg la bi fii nii li fi am li fi Balla def kenn mës koo def. dëgg la làmb joo xam ne dañ koo jël maye ko. télévision yëpp di ko suivre à direct. Mhm. fii nga toog nii du rouge bi doon mas nga koo gis. 15000 rouge. nu maye ko direct ñëpp di ko seetaan. nu mhm. tëj stade bi rap li des ci biti ëpp li nekk ci biir. Mhm. kooku Balla Gaye rek koy def ci làmb. man la promoteur ak sponsor moom la ñuy wër. balaa duggati ci dara na xool ba wér am ay potentiel am soog cee def. kenn du ko bàyyi loo bëri ndax métier am la. bu bàyyi bëri ëllëg si biir ku koy jox dépasse. danoo xam li muy dundee. dëgg la waa ñoo war a conscient nité. la. nangul ko li muy def. ñaanal ko mu bañ a gaañu ñu ko demal entraîné ji. bu daanoo dix fois bu ñëwee feesal stade kooku nag promoteur sax moo ko dul bàyyi naan ko bàyyi. lu tax lu tax muy bàyyi. kat boo bàyyee ay cent millions la koy bàyyiloo. entraîné ji ñëwaat. ñi mu daanoon da leen a gën. Mmh. làmb daanu daan match nul. Mmh. ku la fi daan daan nan ko. Mhm. te bu bàyyiwul bu yàggee day daanu rek. d'accord ma ñëw ci ci ci géejawaay ah. ñu gis ne géejawaay souvent bu jubee combat yu mag ay coow da ci am avant combat bi ñu ngi gis sa plein guy gi ma koy nuyu bu baax a baax soo mag génn na xaw a classe kii di Lac de Guiers après Lac de génn tontu ko ci journée boo xam ne presque dañ naan 4 jour moo ci des est-ce que loolu baaxoon na ci ay champion yu toll noonu. xam nga tey lu tax sax émission bi mooy indi la arène nationale <coughs> fii la xew woon rek a ci dox. deux jours moo ci dox. diggante boobu ak léegi waa Géejawaay laa wax foog nu conscient muy mbër muy dirigeant muy supporter te xam ni lu ne def nañ ko ci làmb. ci sa euh, sama dernier vidéo ak ñoom wax naa leen ni. wax yi nuy waxante ni c'est pas le moment. dëgg la day déstabiliser mbër. day destabiliser mbër ci journée bu mag. muy mbër yi ni nu waxante noonu waruñu ko waxante. Mm-hmm. parce que ñoom ñëpp ay gaañ lañu. Mm-hmm. le leen sale se lave en famille. dañu am ay charge am ay bonne volonté am ay dirigeants yu nekk ak Guédiawaye hmm. bu ama tey ay zone d'ombre yu nekk seen biir pour nu tirer ko au clair na ñooñu wax ci nu bañ koo génne dans les médias hmm. puisque ji nga balu fital mooy wax bu xasee génn mënatoo ko téye hmm. te mbër mi nekk ci journée bu mel noonu di ko préparer nu nekk ci wax yu mel noonu baaxul parce que j'ai vu même Diaw génnaat dinaa ñëw foofu. waaw mais est ce que tamit guy gi lee nga xam ne wax na ko Lac de Guiers ko woon a woo ñu waxtaanee ko ci suuf parce que man loolu dama ko remarqué heure bu combat bu mag amee rek géejawaay dañuy commencé bi tas na commencé xuloo ci ay champion yu toll ni ñoom est guy gi jotul woon mu woo Lac de ci suuf waxtaan ak moom wala mu woo leen yéen ngeen ngeen réglé loolu. guy gi amul sax lu muy woo Lac de ci suuf loolu lu la am na mu toll nii am tey bu ñu la laajee lu tax la de ñëw ñëwul man la dama laaj ko. tout court mu jeex. ku loolu la débat. loolu nag waxtaan naa ci guy gi jégalu na ko jeex na am ah. on tourne dañu tourner page bi nekk ci beneen liggéey. d' accord ma ñëw ci ci jaww bi ñu ñëwee man vraiment vidéo bi mu ko gisee sax dafa ma xaw a touché jaww ni ko gisee seetaan nga ko naka nga naka nga naka nga gisee réaction jaww après combat bi. réaction ah, réaction à chaud la jaww def xam nga jaww aussi quoi qu'on dise comme dirigeant la boo xam ne. ñaari ginaar bu ginaaru géejawee ko gënal ginaaru feneen. Mhm. kooku jox ko cër bi rek. Mhm. ak quelque soit lu ko booy def lu ko naqari moom tamit bu mu génn ci média yi dafa teel. doomam fii sam daanu na na ko dëfal waxtaan ak waa géejawee xool li ko naqari ci beneen doomam bi tees mu waxtaan ceeg moom tête à tête ni ko lii bu ko defee defeti nangam ak nangam ak nangam ndax kooku dafa jub bis bu mag aussi. Mhm. xam nga boo génnee ci moom wax rek. tamit te mu war a jëm ci bis boo xam ne est-ce que gën metti sax bi Balla gay jóge hmm. mën na ko déstabiliser. Hmm. mais maanaam li ma xam mooy na Sa Thiès dawal respect jàpp ni papaam la. Hmm. lu baax rek la leen bëggal. te moom wax dëgg yàlla ginaaru géej géejawaay sax moo ko gënal ginaaru feneen. même bu dee def ay ay ay ay yenn erreur yi. nan ko ko nangul rek garaawul quoi mag la. xamal ni naan mag buur la ko quoi. mais moom tamit en tant que dirigeant doon mag. mois je préfère boo amatee lu ko naqari mu bañ a dem ci média yi di ko wax quoi. surtout ñoo xam ne ñoo bokk parce que moom icône la quoi Guédiawaye. Mhm. moom vraiment référence la ci Guédiawaye te toujours mi ngi nekk seen ginnaaw kon bu muy génn def yenn sorties. Mhm. parce que ñeneen ñi dañ koy utiliser quoi. Mhm. dañuy jël loolu. di ko utiliser comme arme quoi. c'est dangereux il faut l'éviter. kenn du def réaction à chaud bu combat jeexee. boo amee defet da ngay da ngay toog dal. def réunion de critique xool naka ngay. entamé mbër mi beneen procédure. ak yeneen mbër yi ban nan lañ war a préparé woo. Mhm. te géejawaay danoo nekk ci ay journée yoo xam ne vraiment soxlawul coow. Mhm. foofu daal maa ngi fay woo waa géejawaay quoi. Mhm. ñu def prise de grandeur. gën a dal gën a tey. gën a xoolaat nu ñu engagé wu ci combat yi ci seen kanam. te bàyyi coow li quoi coow fajul dara. baaxul. baaxul non c'est pas bon. tey tey lan ngay wax ci ñi nga xamante ni ñu ngi naan Balla Gaye jeexal na Balla Gaye mënatul boo xoolee moom booy ñaa presque trois ans la ci làmbo Balla Gaye à 36 ans bu doon aas la Bombardier du ko daan. Hmm. bu doon aas hmm. la Eumeu Sène du ko daan. bu doon ay defet la Eumeu Sène ko daan bu waree bàyyi bëri bu doon bàyyi bëri tey xanaa da nga naan Eumeu Sène bàyyi bëri kon Eumeu Sène a ko ëpp defet mag ko hmm. mais bàyyiwul bëri. Bombardier xanaa kon da nga naan ko bàyyi bëri. làmb bu fekkee ku ba ku daanu bàyyi ko ku fi des kon kenn du fi des. ku daanu daanuwaat bàyyi ko. nit di tegale huit defet neuf. te tey mu defe ni moo nekk au sommet. Mm-hmm. doon roi des arènes à huit défaites. Mm-hmm. tey lu ne gis nañ ko fi ci làmb. Mm-hmm. di defet du tax Balla Gaye bàyyi làmb. di nga Balla Gaye Balla ngoram ngarmeem ak man làmbam ak njàmbaaram moo tax booy ñaamu bëreeg moom dafa dem ba def dos au mur bala ngaa xas Balla Gaye xanaa ñi ci yoon wi nga war a wax ñu waroon a freiné Boy Niang te freiné wuñ ko. ko neexoon bàyyi Balla Gaye. ko hmm. neexoon du ma bëri ak moom. Hmm. mais comme moo sës te gars yi jeex nañu. Hmm. day jël bëri rek. lu ko ci fekk fekk ko ci. ngoreem. ngarmeem. ak Balla bu jógee sponsor yu jóg. Balla bu jógee promoteur yu jóg. Balla bu jógee làmb yi sax dañuy otosu ñiy nekk ci làmb yi géwél yi ñëpp dañuy otosu. événement la man. nan ko ko nangul lu yàlla def ci moom la. mais est ce que tamit waxi dégool ci tamit ñëpp jàpp ñu ni moo moo moo moo tombé aussi tamit lim noonu wax. dégool lu wax dégool Balla moo gën a neex daan ci mbëri di ko clash. est ce que waxi dégool jooju noonu parce que bi ma gisee ñu bari dem vaar ñu ngi naan dégool li mu lépp am na ci Balla man du ma si du ma sax yenn vidéo yi quoi. puisque que déggal du du coach su Balla Gaye kii Boy Niang papaam la. Mhm. waaw mais quand kan mooy wax sama doom kan mooy wax sa doom ci ab safar. Mhm. sa man du ma wax sama doom sax loolu dafa xaw a góos sax. waaw léegi moom déggal fi ma woo jaw rek laa ko fay woo moom tamit di nga boo nekkee kilifa aussi mën na wax nii rek ci sport quoi mais man bëgguma nuy dugal nuy dugal parents yi mbër yi ci ci ci làmb quoi. Mhm. parce que Balla attention boo Niang il communique très bien. boo Niang il est intelligent. Mm-hmm. il communique très bien. Mm-hmm. loolu tax du ma bëgg ñuy dugal ay. ay papa wala ay coach d'accord d'accord ma ñëw ci prochaine combat Balla Gaye xam naa dañuy def bande annonce ba combat bi gën a jege si ñu gën cee waxtaan. Mm-hmm. tey Balla Gaye jugee ci defet jëm ci combat boo xam ni moo gën a risque ci carrière mu di digganteem ak Eumeu Sène. waa Guédiawaye nañ xam ni man waa Guédiawaye laa Balla bu daanoo dix fois dix dix fois te bëgg a bëri. ni làmb ji mel dimanche lay melaat loolu nu ko nit ñi xam def ko seen bopp. Mhm. ma ni la ñi nga xam ne ñooy les bailleurs les promoteurs ñaanuñu yàlla sax Balla bàyyi làmb. Mhm. bala nga xam ngay xool ñi nga xam ne ñooy demande def bind demande de sponsor yi bailleurs yi ñu leen koy bindal xam na ne leetaru Balla gay du leetaru keneen bu dugg ci benn du mhm. duñu benn xam nga kooku ñaanul yàlla mu bàyyi. mais Balla mbër yi amuñu beneen liggéey nan bàyyi diw na bàyyi. mbër liggéey mooy euh, mooy liggéeyam. léegi yow nga nu ko ci fay ay cent millions ak li nekk ginnaawam yëpp. xamoo train de vie am xamoo lu muy def mu daanu ngeen ko bàyyi. xanaa kon wax dëgg yàlla moom mbër yi daanu huit fois neuf fois dana war a bàyyi. léegi làmb bu fekkee ku daanu bàyyi bu fekkee ku daanu daanu bàyyi. xam nga Balla Gaye ci victoire la jóge mhm. ñëw daanu nun ko bàyyi. Mhm. léegi kon moom xanaa làmb ji kenn waru fee des. Mhm. kon xanaa ñu ko mag danoo war a bàyyi. d' accord mais prochain combat Balla Gaye bii mu jëm ci digganteem ak Eumeu Sène nga yaakaar ni aussi tamit bokkul ci li nga xam ne day gën a risqué ci carrière am. muy risqué am Balla Gaye carrière am amatul dagg jéng yi il a tout donné il a fait ce qu'il devait faire waa Guédiawaye foog ñu xam loolu nan ko bëgg ci Balla Gaye mi nga xam ne mooy ndaanaan bi nga xam ne lu ne defal na leen ko. toppaat ci ginnaawam ni daan topp ci ginnaawam xam nga lu ñu koy wax mu dem entraîné ji boo amee lu koy miti mu faje ko hmm. dem entraîné ji ci liggéey la ne xam nga lu ñu koy ñaanal mu bañ a ci làmb hmm. bëre ba bàyyi du am benn blessure lañ bëgg ci moom hmm. mais bu war a bàyyi moom ci nga la longévité d'un sportif dépend de ce qu'il fait du matin au soir mbër guddaayam ak yàggaayam ci làmb mi ngi dépendre ci li ngay li muy lekk li muy doxe li muy dunde ak ni muy def su fekkee par exemple sa yaram sentir nga ci ni yow mënatoo def kenn du la ni bàyyilal sa yaay bàyyil sa bopp d'accord léegi tey Balla Gaye boo ko doon conseil ci combat bi mu jëm ak ci combat bi mu jógee actuellement nii ban taxawaay la war a taxaw pour affronter ki nga xamante ni moo di Eumeu Sène li mu entraîné li mu bëreeg booy ñaan ni doole ji mu indi booy indil booy ñaan ak forme bi mu yónni lay continuer ba dajeeg Eumeu Sène dégg mhm. ko mag moo ko ëppi defet na entraîné li mu entraîné nii ba dajeeg Eumeu seen jot. Mhm. boo amee lu koy métti na ko faji bu waree entraîné na entraîné ji. Mhm. te jël combat bëre ko géejawaay toppaat ci ginnaawam. Mhm. waa Pikine nan daan nan daan Balla Gaye cent fois. Mhm. làmb mënoo daan ñëpp. Mhm. amul ku daan ñëpp. bu doon loolu ama seen bi ko fi booy bi daanee nu joxaat ko ko mu kawoo ko. ñun ko bàyyi. lu tax waa Pikine néew nu ko bàyyi. kenn wax ko bàyyi parce que dañoo xam ne ci liggéeyam la ne nan bàyyi mbër yi nii bàyyi loo bëri. te kenn nuy di sa bureau bi nii bàyyil sa bureau. Hmm. wala bàyyil sa atelier bu fa demee yooyu loolu day wax indi da nga ko demal nga entraîné ji boo demee ba sentir ni mënutee dem nga libéré nit ñi. Hmm. bàyyi noppal. lan hmm. nag man laa koy conseil na def réunion de critique boo xam ne day tëju ci néegam moom soxnaam ak famille li muy sentir. absolument su fekkee dara méttiwu ko. mu dem entraîné ji. kon ne quelques combats. bu waree bàyyi bu toogee waxtaanam ak ngegenaayam ak famille su ko yàlla joxee jeneen taraanga dul làmb su ko neexee buy bàyyi moo jëlal boppam décision mais na jàppale Sa Thiès sur le plan professionnel ñu topp ci ginnaawam bu demee bay bàyyi na leen indi ñu jàppale Sa parce que xale la am na doole te am na avenir ci kanamam bu waree tukki tukki bu waree dem ci saal yu mag yi dem ci saal yu mag yi suñ ko waree ngemm ñu ngi ko daan ngemm mu boole noonu ndax ñaari kuy bu nu bokkee mbalka naan ba du neex mhm. na rakk joo xam ne wax dëgg yàlla mhm. war naa mën a waat ñaari yoon ak booy Niang. la. làmb da nga naan bëree quatre fois cinq fois ak nit. Mhm. Falaye Baldé ak Landing Jàmme ñaata yoon lañ bëri. bëri na moom bu décroché tey rakam war naa mën a bëri Boy Niang cinq fois wala quatre fois. parce que boo làmb ji du xam nga làmb ji lu mu ci war a génne. Mhm. làmb ji du géej a way Pikine. Mhm. waa Pikine ñun duñu seen wujji peccar ko xam nga làmb fu ne ngay am adversaire nan bàyyi idée diw la mu def Pikine da nga loolu def Géejawaay rek waa Géejawaay def nañ ko ci yeneen localité yi. Mhm. làmb la yooyu foog nu génne ko ci. Mhm. génne ci ay ay ay parce que dégg naa sax palmarèsu palmarèsu mbër est-ce que di nga ci lim di nga ci lim euh, mbapat te pourtant dégg naa waa ay mbëri géejawe ci <laughs> six combats mbapat nga koy lim ay ñoom pambaay yoo xam ne ba nekkee tout tànk lan bëri woon <laughs> dégg naa boo ñaar daan fi seize mbër ah mais lan wax déedéet onze lan wax ni six yi mbapat la waaw lambe mbapat nu muy bokkee ci palmarès lambe mbapat nu muy yooyu xam nga ay classe la rek yooyu gars yi wutu ko def sax di jéem a def seen bopp yàlla na ko jik yàlla na dem ba doon roi des arènes booy ñaar mais takkal moom. Hmm. comme quoi que yow yaay yaay yaay yaay maire de Guédiawaye yaay lii waa Guédiawaye yow baaxul quoi mais jërëjëf Pape Sarr ngay waxal nag Pape Sarr moo génn ni Boy Niang fi ñu doon ni jot na Ahmed Aïdara jox ko maire parce nag wax a <laughs> de moom sama waay la mën na ko wax dara waaye <laughs> ah, ah kon la xanaa la dëgg daa tuxu est-ce daa tuxu. mais Pape nag ji li mu wax daa tuxu. <laughs> joxaat ko ko suba nga xool. ko yow d'accord la jox Pape Sarr jooju. waaw joxaay day wax lu ko neex dafa saf xorom waaye léegi joxaat ko la dëgër suba nga xool <laughs> non Pape day nekkoon ne quoi <laughs> mais daal xam naa ne Sénégal daal. Mm-hmm. mbër mu mel ni Balla Gaye leen bëgg. Mm-hmm. loose fee nga gis ne cent mille. Mm-hmm. fii nga toog nii quinze mille. quinze mille foo xam ne trois mille ak deux mille lan lan ka daan dem. cinq def ko quinze mille francs mu fees ba gars di toog ci pied bi. mais kenn du Balla Gaye mhm. wax dëgg yàlla champion la bu mu bàyyi na dem liggéeyi. Mhm. booy ñaam mii ma gis. Mhm. roi de arènes lay yuti. la te man na ko am ku mu mënta daan amul. xam nga tax ku mu mënta daan amul. fi booy fi Balla Gaye toll woon la toll. yutum xaalis. xaalis la yuti de li am la bëgg de. am ci am ci yu baax yi la bëgg de. te xool xam na li koy may de. liggéey rek ko koy may. daa entraîné ba boo ko gisee xam ne kii. waaw léegi nag Balla Gaye mi egg ci daw ba egg au sommet plafonné. mën naa yem ki nga xam ne nag daa bëgg a dem fi Balla Gaye dem. mënul nekk non non non loolu bu mu tax nu waa géej yooyu di mhm. Balla Gaye. Balla Gaye la. ci liggéeyam la ne. Mhm. nan xolaat seen bopp. te bàyyi xuloo yeeg waxat yi waa géejooy nan bañ a doon ay ay comédien mhm. mais ba géejooy bu fekkee mbër yëpp dañoo bëgg def seen bopp comédien nag man xamoo fu ñu jëm nan bàyyi loolu mhm. mais ay mbër lan dañoo am ay journée yu garaaw ah. mhm. parce que Eumeu seen dafa dugg ci foo xam ne tey bu ci génnee day am fu mu dugg maar la dugg foo xam ne bu ci génnee day am fu muy dugg ah. bébé guy gi am foo xam ne bu fa génne day am fu muy dugg mhm. mais ñooñu ay mbër lañu mhm. mbaam gàtt na waaye ci jur gi la mhm. te ñooñu nan bloqué wu ñun ñëpp nekk seen ginnaaw ëllëg Balla mën a am relève waaye duñ pousse Balla bu mu sës ci miir bi ba kaay ma wax la de Balla bu ñu fekkee ni gars yi góorgóorlu tamit fii lay toog bu ñu ko joxee yaaw jaal sax bu ñu ci fay xaalis mu bëre moom ndax day liggéey d'accord mu ngi noonu ah moo nekkoon suñu invité fi may jeexalee nga wax léegi benn combat boo xam ne xawoon naa ko fàtte muy Eumeu Sène Junior combat bi mu jël ñëpp ne waru ko woon a combat bi lu tax jël ko. waaw lu tax ma jël ko mooy Eumeu Sène junior Eumeu Sène junior boo seetee ay combat am jaarul ci benn yoon autoroute à péage lépp ci rang-rang la ko jaar. Mhm. général bu Malika xanaa ah, gisoo ko. waaw. lu ko lu ko lu ko lu ko ëpp de. Eumeu Sène da ko daan waaw. Bour Sine gisoo ko xanaa. gis naa ko. lu ko Serigne Ndiaye ëpp de. dara. ah mën naa limal dix mbër yoo xam ne. ba ci ba ci ba ci ba ci booy kii ànd ak booy ñaani mhm. ñoom ñëpp mhm. kalmu nduur mosut a daanu Serigne Ndiaye mhm. euh, mu taa Serigne Amasya na ko dégloo muñal fii. waaw léegi nag kooku bu bëriwul ak Serigne Ndiaye boo ku muy bëreel. da ngay daan champion pour doon champion. bu génnee ci combat boobu. fàttali diggante ma diggante ma Mbapat Mbapat diggante ma Xaarim Ndiaye la. mën naa dem sax ba ba Amasya bàyyiwu fi kenn de. faalewul mbëru mbapat mhm. faalewul diw dafa mën a bëri mhm. faalewul diw dafa mën a xeex mhm. géejawaay nag loolu leen war noppi te liggéey danoo war a noppi liggéey mbër yi nañ liggéey dirigeant yi li def leen war a def toog di waxtaan seen biir te moytu média yi nan moytu dëpp la micro rek ku jóg rek samp la micro ni la waxal nga wax ba xaabaabal. mais guy loolu loolu moom guy gi ngay waxal. non waxuma guy gi ñëpp laa wax dëkk Géejawaay ci nga bopp muy dirigeant muy mbër mbër ko war dirigeant tamit dem dem dem école baa ko war. d' accord mu ngi noonu ah gars yi vraiment ñu amoon mbégte ci dalal ko muy suñu consultant nekk ko disponible ci suñu côté nag vraiment koo xam ni tàyyiwul benn yoon ci sunu kër donte ay xale lañ mais bu ñu ko woowee. gis nga tey sax moo ñu imposé kaa dem arène nationale kon vraiment. ah puisque lépp di xew. d' accord kon mu ngi noonu ah nekkoon suñu invité di Père Djily Wade tey sa mot de la fin ci émission bi. waaw sama mot de la fin mooy di nuyu ñëpp. Mhm. di wax benn appel ni écrit yi ak école de lutte yi seen dirigeants yi nañuy gën a concentré wu ci école yi ak écrit yi. Mhm. puisque nag écrit ak école de lutte. dafa mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy entité globale bi nga xam ne. Mhm. moom mooy gérer léppi làmb. di nga mbër balaa bopp bee baax tëgg mu nekk ci entité boo xam ne. Mhm. am na de bons dirigeants. Mhm. règlement bi nu maîtriser ko li nu war a def ci làmb nu xam ko. bu di ñëw xam ne ni indi ba nga xam ne waa waa CNG du nu sonn. parce que liggéey bi CNG di liggéey. dirigeants yi nekk ci école bi ñoo ko war a dafa war am suivi. dëgg la ñoom ñoo ko war a eggale mu egg ci askan wi. entraîneurs yi ngay wax ak mbër yi ngay wax ak ñoom. Mhm. xam na kenn ku ci nekk règlement intérieur bi nga koy appliqué à la mhm. boo ñëwee fi doo fi am benn problème. Mhm. parce que ñu fi nekk da dagg dagg rek andiwu leen fi. da ngay teggi sart yi ñu soog laa dagg. te bu fekkee formé nañu laa à l'école. nag wax dëgg yàlla. waaye daa am école de lutte yoo xam ne dañuy exister que de nom. Mhm. ba ngoonee benn entraîneur nga fa fekk ñetti mbër. Mhm. yooyu nag ay école la yoo xam ne vraiment dañ leen a waroon sax dissoudre wala ñu dajale leen dem. <laughs> te boo bëggee dem fédération nag. da nga yut ay écrits yu forte mhm. waaw loolu la ko d' accord mu ngi noonu ah mbokk yi ñi doon suivre ci émission bi ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax di leen jox yeneen dig daje ci suñu yeneen émission di ñi nga xam ne ñoo nekk ci équipe bi ah Ibrahima ah, ak sama DG Team People 221 bi yëpp ñu ngi leen di nuyu ah. ngeen jëf.